civil bi nga xam ne dafa porter plainte doon jéego. man de doon li ñu ci dal. yal na ko yàlla génne waaye. wallaay luy nan la lam toor arwaar pour tey moom su ma neexee ne la wala lu yaa toj nga fi. Euh, jërëjëf soxna Souka maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm encore une fois toute la population sénégalaise di sant di kontaan si li nga xam ni. xew na fi muy ay décision yu am solo yoo xam ne jël naa ko mhm. lépp pour fexe sénégalais yi mën a dundu dund bu neex maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan encore une fois sama première sortie après yokk yi wàññi yi mi ngi ni muy sama première sortie loolu nag moom ci gën a neex le fait que sax euh, nga wax ko rek euh, nga wax ko li nga mm-hmm. xam moo di démb tey nga ñëw fi nga xam rek moom moo di Walfadjri mm-hmm. euh, Brésil li nga def xanaa dangaa bëggaat xam nga nit ñi danoo sonn nga ñëw wàññi xanaa da bëgg troisième mandat <laughs> <laughs> ñu bari loolu la ñuy xalaat <laughs> Sénégal xam nga Sénégal dëkk bu neex la parce que bu ma yokkee ñu ne voilà mi ngi yokk mi ngi def lii mi ngi def la ma def lu baax wàññi ñu ne mais président est-ce que du dafa bëggaat pour dolli. Mhm. xam nga xam naa ne Sénégalais yi parce que si jamono bi ma wàññee ni c'est pas facile. Mhm. France yëf yaa ngi yokk ceeb bi yokk na diwlin bi ak. suukar même France diwlin du nu la neex ngay jëndee. Mhm. dañ leen di rationner. bu juróom ñaari butéel diwlin ngay jënd kii ñaari butéel kii butéel kii butéel ak xaaj lekkoon nga butéel bii daaw daaw kii weer bii sangam loolu mooy lu nga xam ne mu am France mënoo mhm. tëb tëb lekk jënd kii France mer beñe yi fa nekk beñe tul mer beñe France France ak xam nga. <laughs> mer beñ eh, nekk ci mbedd mi jaay beñ. des mer beñ en France nga wax de France. mais France yéen da lu ngeen defe ne France. gisu leen booy naar yor fa forox caay. Eh, loolu loolu. Euh, booy euh. naar loolu moo lay wax ne France am na lépp frox caa yaa fa mer beñe tout ça. mais mer beñe am na France quand muy saaf beñe dama la bëgg a wax ne comme ni mu diwlin gi yombee woon si moom yombatul si moom noonu. Ah, d'accord wàññi bi ma wàññi dund bi dama xool sénégalais yi. Mhm. yërëm leen. ma xam ni sunu borom man la jox réew bi Père Noël nga man la dénk li nga xam ni mooy Sénégal. Mhm. ma gis sénégalais yi ni ñu sonnee. <coughs> ma ne ah il faut ma alléger dund gi wàññi donte état bi munu ko. parce que mhm. dama siy def xaalis bu bari. dëgg la état bi dafa siy def xaalis bu bari. wàññi waale location bi parce que location bi dafa ëpp. Mhm. te maa ngi leen di jox Sénégal na ngeen am culture boole. yoole lañ koy wax yoole temps booy yoole yooleel gaa yi. de leen boole. parce que aussi am na loo xam ni kenn mënu ko nangu. Mhm. tabax sa kër ne dina génn balaa juróomi weer. dama koy sëf ci kii nga xamante ni kii dooleem demeewut noonu. Mm-hmm. loolu fu mu tegu. amul fenn. ah. nan lañ mën a nuyee ay à ay studio deux cent cinquante mille mm-hmm. bi ma ko déggee kii wax ko dama dama waaru. studio deux cent cinquante mille. fan la tegu amul fenn xanaa meuble la kay ko ah c'est pas que ay wàññi ciment wala loolu mais loolu jaaduwul ci réew mi. boo demee ba tabax da nga dem tabax en long terme ngay yëkkati ngay jotaat sa xaalis. Mm-hmm. loolu mooy dëgg mais munoo ne dama tabax def naa ci plus de cinquante millions dama koy jot balaa at bi di jeex loolu amul fenn. dëgg la Sall. c'est pas normal quand mm-hmm. il faut que bailleurs yi ci seen jëmmi bopp doon nit. nite parce que réew mi naqari na nag du président kese ñoom dañ cee am cër. par des mm-hmm. responsabilités. di yokk rek mu jëm kaw. loolu fu mu tegu. mel ni ay yarkatu gileem. mais alors nga wàññi train de vie état bi loolu. train de vie état bi demeewul noonu ni ko nit ñi di waxee Sonko day kii da ko yokk. ah mais ah. noonu. Hmm. <coughs> train de vie état bi. tey moom bu ñu état bi ñun dañoo sonn tey da nga fay def bës état bi état état bi daanaka ñun suñu dund gi de demeewul noonu. Mhm. dañuy xoslu. gis nga ko wax naa la nela la même oto yi léegi essence yi dañ ko limité loolu yëpp dafa am. Mhm. Hmm. avion bii ma jëndoon nii ngeen naan day bànneexu. bànneexuma neex na nag du ma ko weddi neex na mais li muy neex neex mais su ma jégee du ma du ma yëg neexaay bi parce que damay yëg ni sénégalais yi ci seen bopp sonn nañ mais président est-ce que lii moo tax du wax nii yëpp dinañ ko jëfe tamit lan ay wàññi nii boole leen dama teg numéro boo xam ne numéro vert pour bailleur buñ ci jàpp mhm. dañuy nangu sa kër jox ko locataire ba fa gën a yàgg looy wax nii waaw eh, loolu for na li nga wax nii boo defee mu luye bailleur bu dof dof lu ba ma nangu sa kër locataire ba fa gën a yàgg mooy moom kër gi déedéet dañuy miitewaat kër gi def ko ci turu locataire bi fa gën a ancien bu ko moom muy wëlbatiku di luyee ñi nga xam ñoo dëkk ci kër yi nga xam ne mooy prix uh-huh. loolu mooy sanction yi macha allah macha allah léegi c'est très bëgg troisième mandat jarul lii léegi yow troisième mandat même bu ko sama xel di xam naa yéen a nga bëgg pour ma def ko loolu seen xalaat la wala de saay troisième yéen a nga koy xalaat parce que décision yi ma jël nii yéen a koy xalaat. dëgg la yéen a ngi naan président bi am na yërmande ma xam la loolu nag bu dee da ngeen koy xalaat wax leen ko. Mhm. man ku ma ñaan ma may la. Ah, ah ñaan leen ma ñaan naa leen ko. ñaan leen ma ñaan leen ma ko. troisième mandat bu ma ñaanee ma may leen. waaw président. xanaa yow da ngaa xamul woon ni euh, mburu 175 lay jar. mburu mhm. non mburu sans dépend ci boulanger yi ak niñ koy lakkee <laughs> yaa ngi non yow xam nga seen boulangerie koñ nga xam kii boulangerie koñam la wax kii boulangerie koñam boulangerie yi ñoom ñoo amul préfixe même boo ne woon fanweer fanweer ak juróom daan ne fanweer am na boulangerie yu koy jaayee fanweer. nii nii nekk kiy jëndee ki nekk fii ak xam nga mburu kilo mburu bi matul kilo am na ñoo xam dañuy taayu mburu bi naan dañ koy jaayee fanweer mais mburu mburu la. dafa oyof mais président nga gëj a jënd mburu moom laay ndekkee. prévu yow yow ñu ne fonde ngay ndekkee. non non kii. Euh, jeex na ah waaw mburoog ton mayonnaise. Hmm, alors mburoog ton ak mayonnaise. jërëjëf euh, monsieur le euh, monsieur le président de la république Sénégal. sa temps sa yow yaa gàttal sa kii bi di ci nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel war yawartina waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar Dramé Kañ Socé Mame Makhtar ana maa la dégg nga dama naa la mais <laughs> mooy loolu <laughs> <laughs> donc bu ñu jógee ci ki nga xam ne rek moom mooy président mag dañuy def ci El Hadj Ndiaye njiital 2STV El euh, maa ngi lay fay euh, di nuyu sumay suma doom yi ak suma jabar yi. sama jabar nga am de moo gën say jabar de. <laughs> sama jabar yi madame mun na ko dégg fekk dafa aju olof bi setul. olof bi moo am ay ay problème mais benn cabar laa am c'est la madame Ndiaye. Hmm? donc bu ma waxee suma cabar yi eh, loolu erreur la. Ah, ñàkk déggoo la say cousine lay doon. <coughs> maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci invitation bi di kontaan. waa El Hadj lan la doon jóg def nag. ba nga porté ko plainte doon jéego. Hmm. lan la la def ba nga porte ko plant xanaa Youssou Ndour bi mu doon tagg moo la métti. Eh, jërëjëf xam nga booy bi dafa xam fu kasan mu wokk ko. dafa xam fiy metti mu laal fa mu wokk ko. man su ñëwoon wax ni tagg Sidi Diagne amul problème mu tagg Seex Ñas amul problème mu tagg Bougane amul problème mu tagg Maïmouna Ndour Faye pas de problème mais Youssou Ndour ah. doon jeego day bandi bandi lu waaye kamul Youssou Ndour dem tagaw di wax Youssou Ndour lii Youssou Ndour laa Youssou Ndour Youssou Ndour. mu yow. Birane. <laughs> Njag Ndour. Bouba Ndour Bouba <laughs> Ali Baba. <laughs> ay waay Ali Baba. ñooñu kenn du leen tagg fii. madame Ndiaye wax dama ma ne ko dañu njëkk a wax ni doon jeego mi ngi wax ma ne leen bay leen ko mu wax bàyyi leen ko mu wax. dama njëkk a wax ne ko xaalis. ñu ne fayee ko ma ma ne leen ko mu wax bàyyi leen ko. dañ ko amel bor de. doon jeego toog toog daal kaw mu ban muus moo ko pikkee lekk mu naan Youssou Ndour baax na Youssou ba de Youssou Ndour. waaw oh. ah, léegi daa bëgg. waaw lan moo la métti ci Youssou Ndour di mu wax ah, lu baax. mais nit la waxee lu baax doo ko wax Don Diego jam na ma fetal. mais El Hadj. Don Diego tëj bii wantan moo laa bëggoon. wantan. wantan mais yow mais mais. kii euh, El yow wax sa mbaaxu waay du bañ ci sa mbaax dara waaxu Youssou Ndour gi mu wax Youssou Ndour Youssou Ndour luñ ma def ñoom ñoo loolu mu àndal ba nekku ci loolu danaa ci yow la baax Youssou Ndour ubbi naa tele mu bëgg a tëj sama télé jël ñi ma amoon yépp technicien yi nan ngay recruter bay recruter balekat balekat gannaaw balekat ren Youssou Ndour war na waa waaye balekat du dee dee Ibra Jaw leen mhm. recruter yëpp. Mm-hmm. boobu sama star bi. mais jëlaat nga aram mu jël ko. ah képp su ma nekkoon sa star. mu jëm mu ngi fa woon tamit. ñoom ñëpp mu buub eh, leen mais kat bi mu fay dem nag Sen TV la jógee. waaw non non kooku euh, waxuma ba xam ne kii moo ko wax. deeru deeru xool non Bécaye tey Bécaye Bécaye Njaaba Njalla la. non Bécaye da doon def émission def ma dóor siyaas dóor ma kot. non dafa def foofu émission dañ ko dañ ko foofu defoon émission Bécaye moom moo ma nax wax dëgg yàlla nax non El Hadj Bécaye nag defu la dara moom dafa dafa fidèle ci yow mais dën jéego tamit da daan wax lu baax ci yow wax lu baax déedéet dën jéego li mu wax lu bon moo ëpp lu mu wax lu baax ah déedéet Youssou Ndour ah. famille Ali Baba eh <laughs> mooy Ali Baba bu mag bi Ndiaga ku dem ba sàcc satellite. ku sàcc loolu kenn mësu ko gis. man gis naa ñu ne nit sàcc na ginaar jàpp nañ ko. nit sàcc na télé jàpp na waaye satellite. kat moo sàcc satellite bi yow. Ndiaga Ndour kuy Ndiaga loolu man mësuma ko ko gis moo tax may wax Poutine bu moytuwul

waaw doo fay jën jéego waaye ma ne jën doon naa ko fay weeru dee trente mille. trente mille. kii moom la doon jéego di wax daal buusu boo ko fay trente mille sagam yi mën naa la ko indil ba bindal la ko. yóbbu naa ko France yóbbu ko Amérique yóbbu naa ko. fu mais mais amu fa contrat la wax. waaw amu fa contrat mais. def ni mu fa yàggee ak yàgg gi mu fa yàgg yëpp. moom la guccaacee la am. boo jaacee. Eh, ah, c'est le milliardaire saoudien. waaw milliardaire saoudien kañ. da investir télé bi wax dëgg yàlla da jàppale télé bi kañ da jàppale daan def émission yu neex. Eh, dama ne na jàppale télé bi mu dem comme que c'est le ah. milliardaire saoudien looy laaj salaire. <laughs> Ah, bu jaacee. bu càccee bu càccee kam naa deg dina ma yóbbu naa de droit d'auteur waaye est-ce que na ko ñu ngi koy ñu ngi koy ah, masawu en tout cas doon jéego waaye hélas nag na bàyyi doon jéego ko bàyyi daal na ak doon jéego ah, artiste la vraiment hélas yaay ñu ngi lay ñaan nga daal di koy euh, nga kii quoi parce que tamit li mu doon def noonu da doon xumbal day kii quoi vraiment voilà mi ngi noonu bàyyi ko nañ ko bàyyi mi ngi noonu en tout cas cas en yàlla cas yal na yàlla jubóole mu retrouvé waat liberté am wax dëgg yàlla ñu ngi ci jaajafal képp ku doon lu merci beaucoup Souka Mbaye Daane à suba yow doo liggéey <laughs> ci palaato bi ngay yëg leen nii suba da nga am fooy dem ci Souka ay ci mi ngi noonu ñu ci nuyu nag Fatmata Seye bu baax a baax Fatmata Seye Ndiir ñu ngi lay ziar di la nuyu di ci nuyu bàjjan Tata